yàlla moo baaxoo buy yebal ku ko war a mission missionnaire mu tànnal ko ay waajur ndax lan kenn du ko mën a xeeb wala kenn du ko mën a yeb wala kenn du ko mën a jam ci ab juddoo cent vingt quatre mille prophètes moom la sunu borom yebal ñu ñëw ci daaru duniya kenn ku ci nekk dafa am risaala bu la taxoon a ñëw waaye risaala ba la taxoon ñëw génnut risaalam bi tënk yonent yëpp muy wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil yàlla yónniwut benn jaam ku war a dimbali doomu aadama yi te mooñaalewu ko yërmande jaamu yàlla bu toog ci yéen naan leen yàllaa ko yónni ngeen xool biiram xool bitteen gisu leen ci moom yërmande dem leen ba ko te xam ne ne da leen di nax sunu borom yónniwu sunu borom ku mu yónni dana la duy yermande ba nga fess del mu yónni la ci biir jaami yalla yi ndax serigne Touba su donon jinne wala rap wala malaahik dana ñew daaru dunya ba ñibbi kenn du jariñu ci mom falé ko suñu borom jox ko sak la arab moy wax sak la français man nako ko form wala fu wax jëm jox ko jëm melokanu doomu adam ngir doomu adam yi suñ ko gisee na sunu moroomu doomu aadamaa ngi ne seen fit yam ñu mën a dem nuyoon moom saafoon teeg moom mu wax leen li ko yàlla yónni ñu mën koo gëm ba mën a jariñu ca moom moom Serigne Touba waaye bu ko neexoon yor jëmmi malaayika wala mu yor jëmmi jinne wala jëmmi mala boo leen mës a gis ndax li sunu borom sàkk ci daaru duniyaa te mësu leen koo gis moo ëpp li ngeen mas a gis sunu borom sàkk na façon melokaan wu ne ci mbindaa fonam